maalaw déparé na tey fii ci Nduug bëtt koñu Fatick yëpp bëtt département de Fatick dugg Sangomar traversé le Sénégal dem teere ji waat biir palais pour le deuxième mandat du président de la République kooku mooy maalaw combat du am le 24 février incha allah entre le président Macky Sall et ses adversaires parce que tout simplement le président Macky Sall day défendre benn bilan alors que doxantukat yooyu nga xam ne benn ni nihiliste la maanaam ay politiciens yoo xam ne lu bon rek la ñuy wax duñu wax mukk lu baax boo nekkee opposant comme nan ko daan defee bu mbir yi positifé da nga koy wax bu baaxul nga wax ko proposer ay piste de solution mais opposition bi dafa nihiliste parce que amul programme munul janoo ak un candidat boo xam ne dafa am bilan bilan boo xam ne mën nañ ko défendre tout simplement parce que ñoom bilan bi bilan président de la république mën nañ ko défendre contrairement laa wax ak ñu janoog moom di perturber di créer des troubles à l'ordre public di doxantu ci dëkk bi amuñu programme amuñu lu ñu wax ay candidats télé lañ débat télévisé ay candidats Facebook le président Macky Sall est dans l'action mu ngi ci terrain bi mu ngi liggéey mu ngi mobiliser pour tout simplement que son deuxième mandat soit très facile à partir des militants yi nga xam ne moom la ñu yaakaar ñi engagé di def comme ni muy doxalee il est en train de travailler te dina am deuxième mandat boobu bu soobee yàlla loolu mooy wax ji incha allah le 24 février 2019 maintenant li ma wax rek cette opposition là c'est une opposition nihiliste et nous avons fait notre introspection c'est-à-dire c'est une opposition qui a perdu le nord qui n'a pas de programme moo tax dama naan Malick Gakou Guirassy Atepa Bougane Gueye Dany Madické Niang Boubacar Camara yéen ay nit yu am raison ngeen am na ñu ma ci fàtte tuuti dem leen ngeen joxaat loxo président Macky Sall ñu liggéey Sénégal ñi ci des ay xale lañ ay caaxaankat lañ Sénégalais yi gëmuñ leen parce que xam nañ ne ku bëgg a taal ay président wala nga fetel leen président yu def lépp ci Sénégal ñooñu ku leen jok réew mi ñu taal ko di wax waxu pétrole di wax waku gaz xamuñ luy pétrole xamuñ luy gaz ñooñu du leen jox Sénégal